wursu sellaay nas takkal ko man jaara ma gis jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim buso yow wa jaara laa yarime du jeex ay busa jàngal nga maayu xarnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim iwam wa maam jaara laayareem du jeex jàngal na xarnu bi xaram na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du leen jafe moo tax ñëpp abu dikk fii jaara sigil na jaara xarnu bee yaara bi du juddu yaa dis gorte yaa ami may maam jaara bargil gi si li cosaan maam jaaratulaay soror ya ca ak soror ya ca madina baytil muqaddas ana tuuba minallahi sëb liggéey tëx ba doom yi wala fi denc ay million te seeni maam mësu ko gis maam jaaratulaay yaa rafetu dudd maam jaara maam jaara maam jaara yaa dis te yaa ami barkeel nga sili cosaan maam jaaratu laay jigéen ñi war nañu laaroy di xëñ sa mbor ci lu wér tey xëñ sa jikku ya ndax ñu jëratu laay waa mulku malakuut ak arasiyaa Cheikh Bamba lañ daan safoo maam Jaaratulaay way naa sëtam bi ñu naan Cheikh Jiili borom Baxdaad wuy way leen leen ma Cheikh Xaadar ma ca Baxdaad xirewlu leen ma dellu marsiyaal Cheikh Abdou Xaadar barul ulum la saayibul ayaa